loolu moo tax maa ngi ànd ak yéen di wax alhamdulilahi rabil alamina di ndokkeel lonkar ak kuréel yi mu ëmb yépp waaye di ndokkeel dëgg-dëgg yàlla à tout seigneur tout honneur maire Kaffrine nga xam ne am na yaakaar ne su judduwutoon dund ba xëy nekk li mu nekk jaar ci mu jaar ci mouvement nawetaan ak mouvement sportif ba xëy nekk maire ministre amaana dëgg-dëgg yàlla bés bii du am fii Kaffrine loolu moo tax ba mu tàmbalee ba nag saa yu ma jële kàddu ci moom lay tàmbalee yem ci moom ndax mooy kilifaat dëkk bi ñun ñëpp ak daraja buñ mënte am à partir du waa Kaffrine lañu sunu kilifa mooy le maire de Kaffrine te nit nag lam am lay sagoo mais rax ci dolli mooy parrain wu phase yi nit it bu ko xeebal bésam bu ko xeebal darajaam bu ko xeebal soxnaam bu ko xeebal jàngooram kon Ablaye ñun waa Kaffrine ñu ngi lay ndokkeel di sant yàlla ci yow waaye dama am loo xam ne tey jii ab Ablaye ak ñi mu àndal may ne ma ko ci conseil municipal bi pour ma sargal bu baax beneen doomu Kaffrine moom la ñu daanaka jaglelee waxtaan wi nga xam ne moom lañu war a sumb léegi kooku mooy kan mooy l'autre fas de la même médaille parmi les enfants de Kaffrine qui siègent au gouvernement et qui sont en engagement au service de leur terroir, au service de la patrie, je veux parler du ministre Dr Aliou Sow, monsieur le ministre. Je l'ai fait exprès en attendant ce jour, ce moment, cet instant, pour vous dire la fierté que vous procurez à tous les fils de Kaffrine, mais surtout signaler à l'adresse la, du Sénégal et de sa jeunesse le bel exemple de dépassement dans l'engagement au service de la patrie et du terroir que vous donnez, vous deux, à savoir Ablaï Sow et Alun Sow. Dieu vous préserve dans cette unité, Dieu vous préserve dans ce que vous faites et qui, sans nul doute, est en train d'avoir des effets parce que vous êtes en train de faire et de prouver des choses qui contribuent à ce que l'on appelle l'art d'accoucher des destins et des vocations. Incontestablement, il y a des enfants de Cabrine qui vont redoubler d'efforts à l'école, qui vont redoubler d'efforts dans l'exemplarité en vous voyant vous déployer et en voyant assumer des missions ô combien importantes. Soyez-en encouragés et que Dieu vous guide.